saa maa ngi leen di nuyu. xay ku nekk maa ngi lay nuyu. suñu diggante Gambe. suma diggante Gambe. ñun ñi nga xam ne ñoo juddoo Gambe yaroo Gambe. xay daka fa. ak ñi nga xam ne dakaw fa toow. nekk ci àll bi. yéen ñëpp a soo because maa ngi leen di nuyu. The whole world. Say because country is beautiful country. xëy bi ma jugee Dakar si laay soo xam lu bari xam nga jama dafa neex jama dafa neex de dunda nga koy xam su la soree ngay soog a xam ne jama dafa neex su diggante nga Adama Barrow yàlla moo ko tudda te am na ñoo xam ne tey soo leen koo waxoon ñu ne munul nekka lu munul nekka kon du nekka lu mën a nekka mooy nekka kon mun na nekka nañ ko nekkal li nga xam ne moom laa buga mooy ñu fàtta demba demba ah nañu ko fàtte ñu xool li nga xam ne moo nekka suñu kanam ndax li nekka suñu kanam tey mooy ñu nekka benn man lépp loo ne dama ko defoon si sama diggante Gambia li nga ne moo ci baax mooy xamoon ngeen ne daga dama ko jubaloon ba mu jub xocca bugoon rek Gambia nekka daga boo ne du am ay danga am sa kenn du ko kof jigéen yi dinañu solu solu boo ne kenn du waay ne jigéenu Gambia dañuy tapale góor ñi du yuutal seen tuba yi nga gis seen xota yi loolu nekkal lu ci daga ndax daga li koy doxal mooy ñu wormal ko ay kilifa ñoo fa yeewoo hey lii ma safoon kaani <laughs> dama safoon sapa kaani ñoon yaya dafa weex yaya dafa sa poobar léegi indi naa ko mu nekk sukar eh? waaw sukar <laughs> gay comme que kaani bi dafa safoon ma def ko suukar moo tax suma diggante suma parti ñoo waxtaan ñu ne yeeya bàyyi ñu ànda ak baro ñu bëri dañu yaakaar ne man maa woo baro ne ko kaay ñu liggéey déedéet man dañu ma jiital ñu ma yeeya doxalal nekkatuma fa waaye xam naa ne jama bi mooy man ak baro ñu nekka nii man ma nekka kuur moom mu nekka gënna man ma nekka mburu moom mu nekk man ma nekk suukar moom mu soow man ma nekk a mburu moom mu meew ak lu xam ne dafa war a ànda mu ànda man ma nekk sijaada moom mu nekk a julli loolu ya man ma nekk a ginaar moom mu dungu loolu yëpp mun na nekk lu war a ànda ñooy ànda man ma nekk oto moom mu baar man ma a boppa moom mu nekk a mbaxane mën na anda lu mën anda ñooy anda lu mënul anda du mën anda kon li war a anda anda lu mën anda ñooy anda lu mënul anda hey du anda kon lu bëgg anda an nañ ko andal hey nga ne hey gis naa benn paa because magla is both throws eh, eh, faasa moom bu doon moom dama koy wax papa dama koy julil Gambie dama koy julil waa Gambie Ousseynou Dabo dama nga julil waa Gambie parce que manga man dama war a dem julli yow fu mu moo la war waaye du nekk fii naan waaw fii kenn fii ponse dañu koy ponse ba mu neex xam lu tax dama nekkoon kaani léegi nekk naa sukar ah, because yaya man maay mburu ah. baro mooy soow buñ ko jaxasee ponse dañ koy ponse naan ko boolee ponse naan la ñuy yëngal naan man maay mburu baro mooy soow buñ ko jaxasee yëng mun nañ ko naan hey mën nañ koo naan hey. réew waaw. suñ ko mën la koy seet et dañuy yëngal naan. kon li ma daanalee mooy. waaw yow ba eh, ke Ousseynou Daba. yow Manga. mag dafa dem nekk xarit kurus. ak sijaada. mag jaka mooy xaritam. mag loolu mooy xaritam waaye du politique. dafa am at boo xam ne boo ko nekk da nga ko bàyyi. waaye man ku mu ak ku neex ku mu ak ku mu man may mbaane boro mooy boppa bu ñu andee dem ku ko gis da ngay kontaan hey hey waaw hey man may gëna boro mooy kuur boo ko debee mu mooxa man may gëna hey